أغناني الله رب الجن والبشر هني أنا والأذى بالشكر والبشر أنا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 gisoon nañ ni ñu fexee ba installé suñu machine bu fekkee ne offline online bi gisaat ci deuxième partie bi li nga xamee ne moom mooy quelque ci ay yoo xamee ne dañ koy dugal ci suñu biir li ñu réaliser projet bi ak yu ci aju tey jii nag incha allah leçon bi dañ koy jagleel spécial ci li ñu woowee émulateur émulateur bi ñu koy xam mooy lan mooy naka la def ba projet bi ñuy gis ndax mi ngi baax wala baaxul ndax euh, mën ngaa réaliser ba àggal ba def li nga def ba pare enregistré ko daa ko def ci sa téléphone te fekk ni yow du baax kon nag bala ngaa enregistré yëf yi naka laay def ba xam ne lii ndax mi ngi dox wala ndax doxul euh, loolu la ñu émulateur loolu nag incha allah danañ ci gis euh, ñetti façon ba ñeenti façon yoon yoo xamee ne noonu la def ba di jàkkaarloog li nga xamee ne ñu ngi koy ñu ngi koy gis incha allah yenn yi dafay aajowoo ñu connecté ak suñu téléphone na vidéo ci lañ koy agalé yeneen yi mën nañ ko def ci suñu machine euh comme li nga xamé ne rek mom moy wartef ci buñ la nga dugg bu fekk da nga da nga nekk ci offline bi moy nga connecté ci app Inventor 2 bi ni ak moy yi nga xamé ne moy tax ba nga mën ci dugg boko ubbé ba paré bam ubbé ko ci baratage bi euh, comme ni ko gisé won ci leçon yi jitu ñu doog a dem nag daal di bind li ñu woowee local os euh, daal def deux points daal di bind 4 8 bu ko defee daal di dugg ci li nga xamee ne moom suñu application bi nii euh, bu ko defee nag buñ duggee ci application bi comme ni ñu ko gisee nii euh, démb gisoon nañ ay bouton beeg ak yi nga xam ne moo ci aju incha allah beneen jàll ci yeneen yi avant ñuy jàll ci yeneen ñu xool naka dañuy fexe ba di mën a gis liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def dañuy ñëw ci. ginnaaw boo xam nekk na français day ñëw fii ñu bind fii ñu bind connect euh, fii ñu bind connect da nga ciy cliquer boo ci am na fi li ñu woowee euh, compagnon all incha allah ak émulateur incha allah gis ak li nga xam ne mooy li ñu woowee USB euh, bu dee dañoo ñëw ci li ñu woowee li nga xam ne mooy compagnon all bi naka lañ koy réaliser ni nga koy réaliser mooy avant tout damay connecté sama sama sama téléphone ngir ngeen di gis li nga xam moom la ñu def euh, ma pause vidéo bi tuuti daal di sama téléphone ngir euh, ñu gis li ñu euh, comme ni ko ni ñu ko waxee léegi léegi dañuy dem ci suñu téléphone avant boo bësee ci bi daal ñëw fii ñu bind compagnon all bi daf lay indil benn plateforme mu mel nii mooy dafa am benn code bii da ko war a scanner code bii nga gis da nga ko war ci sa téléphone naka lañ ko scanneree. léegi ñu dem ci suñu téléphone euh dem ci fiñu woyé euh Play Store xamna ngir bañ a vidéo ma pause ko té dem ci téléphone bi. ko waxé waxewul léegi léegi ginnaw bo xamé na tal nañ suñu connexion wifi bu machine bi euh tal suñu connexion téléphone bi connexion bi léegi may dem Play Store ma té sa application bu ñu woyé euh Meet ID Companion All loolu né sama nga ñu ngi bind euh, All Companion bu ko défé da def Meet bi. daal koy installé boo ba noppi nag ba nga def ouvrir boo ko ouvriree boo ko defee nag yow euh, nga def continue boo defee continue fii léegi ci sa machine fi ñu doon fi ñu nekkoon léegi fi ñu bind fi ñu defoon connecteur da ngay def fi ñu bind compagnon all boo defee foofu euh, ko foofu compagnon compagnon all ba pare da nga ñëw ci sa téléphone nag daal def ci case bu bële bii nii scanner bi boo scanneree léegi dafay daal scanner li nga xamee ne moom mooy lan moom mooy euh, code bi ngeen gis ni bu scanné automatiquement dafay daal di euh, jàkkaarloo incha allah ak ca li ngay liggéey ci ci sa ci ci sa ci sa téléphone bu ko defee comme ni ngeen gisee nii boo ñu xoolee même écran bi nga xamee ne moo nekk ci suñu machine bi ñu fi bàyyi woon boo xoolee moo nekkaan nii euh, texte pour bouton bi ak image bi nga xam ne moom moo ci moo ci nekkoon comme bii mooy premier méthode bi nga xamee ne dañ ko jaaree ci ci connecté ñaar téléphone bi ak ak machine ñaar yëpp dañu connecté nga télécharge application ci sa téléphone daal doog a ñëw daal koy doog a am lépp looy liggéey mën nga ko gis fii ñu gis benn euh, bu dee nag euh, deuxième méthode bi li ngay soxla mooy lan ci sa téléphone euh, câble USB laa bëgg laa ko bëgg a connecté USB naka laa koy connecté ak mooy que damay dem même fi ma nekkoon léegi ci connecté bi foofu ma def connecté bu ma defee connecté yi ci fa ma nekkoon léegi Euh, fi ma nekkoon léegi bu ma defee euh, damay avant ma def connecté am na ci téléphone yoo xam ne da nga dafa am a activé ba pare mooy ñëw ci paramétrage bi nga wàcc ba fi ñu bind à propos sa téléphone man sama téléphone bi nii ndax man lii mooy li ñu woowee développeur mooy option de développeur bi moom moom laa soxla am na ci téléphone yoo xam ne boo ñëwee doo ko gis pour nga gis ko nag da ñëw nga dugg ci fi mujj ci sa téléphone boo ci duggee daal di wàcc ba ci suuf mu bës kii bi sept fois boo ko bësee sept fois kon di bës nii nga kon bu mujj wax na léegi vous êtes déjà un un nga di génn boo ñëwee ci sa développeur fii nii daal di ñëw ba ci USB bi mooy fi bind euh, dépocar USB bi après nga daa koy activé boo ko activé nag léegi nag bu ko boo ko defee ba mu normal euh, léegi ci sa ci sa machine man nga ñëw ci fi mu nekkoon léegi mooy même ci compagnie wol bi foofu après nga def USB euh, boo defee USB e da ngay branché ca eh, def li mooy eh, branché eh, ma ma def bi ma branché sama kii bi sama USB e bi nekk nii tête USB e bi ko ci sama ci sama machine bu ma branché def ngeen léegi mu signalé ci sama machine ne branché nga sa kii bi ma def daa koy activé bu daal di bàyyi mu automatiquement moom it nga gis ni legui mi ngi commencé di di di di feeñ fi nank-nank ma ko dal bi ni gis ngeen bo leen xolé legui gis ngeen ni legui même sama même sama sama machine bu ñu xolé ci bu ma fi nek même sama machine bi mo ci nek euh bi la bàyyi bay won ñu xolé moom mooy bi ñu génne woon kon bi moy eh, li nga xamé ne moom mooy lan moom mooy deuxième méthode bi bu dee nak li nga xamé ne nag moom mooy troisième méthode bi nak moom moy bi nga xamé nak moom doo aajowoo ngay ñëw ci fii nga xamee ne mooy si téléphone bi boobu moom téléphone bi duñu am rapport ma posé ko sama téléphone demaat ci machine bi te ci sa machine mën nga ñëw ci fi mu nekkoon léegi mooy même ci compagnie wall bi foofu après nga def USB euh, boo defee USB dangay ngay branché sa da ngay euh, def li nga xam ne mooy euh, branché ma ma def kii bi ma branché sama sama sama kii bi sama USB bi ñu balance ko dem ni tel USB bi ma balancer ko ci sama ci sama machine bu mo balancer gis ngeen léegi mu signal ci sama machine ne branché nga sa kii bi ma def ma la ya, koy ya, activer ya. eh, ñu fe dal bay mu ñëw automatiquement momit ngay gis ni léegi ñu ngi commencer di di di di fi nak nak euh ma dal bi ni gis ngeen boo leen xoolee gis ngeen ne euh comme niñ ko gisoon kon lool mooy bi nga xamee ne téléphone da ci am yoon bu dee da ko bëgg jaaree ci câble USB bi eh, ginnaaw boo branché sa câble USB da nga ñëw fi ñu bind USB bu ko defee directement dafay daal di daal ñëw par exemple nag wax naa ko léegi mooy que ni nga def USB nii mu recherche ba mu yàgg daal di am lu mu bind eh, bu ko defee bu fekkee ne boobaa na dafa dafa dafa lank ndax xaaral ma débranché sama sama USB ndax dama ko branché xaaral ma débranché ko Euh, comme exemple ma ñëwaat bu ma ñëwee des fois boo ñëwee USB dafay am lu mu bind dafay lànk comme ni mu bind nii ay descente comme banal euh, nag mën a mën a woo kii ci sa téléphone su fekkee branché nga sa USB ci ngay doog a doog a nag daal dem ca euh, fi nga xam ne mooy si sa paramètre téléphone comme fi ñu duggoon léegi dugg ci kii bi daal di fexe activer li nga xam ne moom mooy développeur option bi ci ginnaaw boo ki cliqué ci ba mujj cette fois nga dem daal kii. après nga daal di désactiver sa euh, câble bi daa koy branché waat incha allah bu ko defee dana ñëw. beneen méthode bi mooy benn méthode mooy boo xamee ne all compagnon bi moom it nañ ko léegi mooy que ni sa téléphone connecté nga ko daal machine ñaar yëpp connexion mi ngi moo xam ne nga ko partagé moo xam xam noo def ba ñu connecté nga dem ci Play Store nga téléchargé li nga xam ne moom mooy all compagnon bi boo ko téléchargé ba noppi dafay am li nga xamee ne moom mooy lay jokkale ak ci sa machine. li leen jokkal nag mooy lan moom mooy scanner bi nga xam ne danga koy scanner bu ko defee bu ko scanneree directement dafay daal xam ne mooy kii bi. Euh, beneen méthode bi nga xamee nag moom yoonu connexion nekku ci mooy bu fekkee ne dangay danga koy bëgg a jaaree ci li ñëw woo suñu émulateur émulateur bi yaakaar naa fan yëpp ñu koy gis euh, moom la ñuy faral di utiliser ma wàññi bi ni tuuti pour mën gis li nga xam ne mooy émulateur bi waaj ñëw ndax fa euh, comme ñi ngi ko gisee nii ma xama kii tuuti émulateur bii nii bu ma ñëwee ci fi ñu bind émulateur te fekk booba téléchargé woon naa ko bi may téléchargé sama version bi ndax booy téléchargé version bi na nga bàyyi xel leen mooy que ni benn mu nekk euh, offline mu nekk online ndax Java Oracle Java boobu bi ñu ko téléchargé bu fekkee da jëfandikoo bi nga xam moom mooy offline bi kon boo ñëwee ci émulateur bi des fois dafay lànk waaye bu fekkee da jël bi nga xam bi mën naa mën naa mën naa ñun nag bi ñu jëfandikoo bi fi ñu doon nii mooy bi nga xam mooy offline bi damay ñëw ci fi ñu bind émulateur moom boo ci cliquer rek euh, damay xaar mu am lu ma recherche gis ngeen moo nekk nii ci baratage bi xam naa du feeñ foofu waaye moo nekk comme téléphone bi ngeen gis euh, ma xaar ko tuuti moom it mu daal di mu daal di ñëw euh, woowee lan Android comme téléphone dafay ja moom dafay jàpp ne yow da ngaa teg fii ab téléphone pour essentiel liggéey yi nga xamee ne moo nga bëgg moo nga bëgg a def bu ko defee euh, ma xaar mu ñëw ay yaa ngi gis seconde yi fi ne moom da koy kii téléphone bi dafay tàkk. bu tàkkee dafa da da ngay mel ne koo xam ne da ngaa sa téléphone nga daal koy tijji nga bës sa clic daal di clic glissé daal tijji sa sa téléphone. boo ko tijjee daal ñëw ci fi nga xam mooy menu bi boo ñëwee ci menu bi daal di xool application eh, Mid Inventor 2 bi daal ko xool. bu ñu xoolee comme ni ko gis ni ñu ko xamee mooy logo kii bi nga mooy Mid eh, ab bi ñu xool ñu xaar ci menu bi mu ñëw eh, bu ñëwee ci ngay ci kawam ci ngay cliquer ci kaw menu bi ci ngay ci ngay ñu xaar tuuti mu ñëw bu ko defee moom automatiquement fi ne dafay daal di dafay daal di jokkoo ak li nga xamee ne moom mooy lan sama sama kii bi bu doon ñëwoon nag comme tey ji exemple tey jii bu ma ñëwoon ci menu bi nii wala ma anéer même bu ma anéeree sax euh, comme tey ji fi ne fii moom dogoo indirectement mais même bu ma anéeree ma anéer tuuti xam ma def fermeture bi daal di anéeraat nga boo xool moo nekk nii mi ngi mi ngi gis ci ngay cliquer rek boo ci ki liggéey après nga xaar ko moom après dana dafay daal di jokkoo ak li nga xam ne moom mooy sa ci sa ci sa sa bi nga xam ne moom ngay moom ngay liggéeyee kon euh, bii mooy troisième méthode bi nga xam ne dañ koy jëfandikoo ngir di euh, gis li nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci suñu ci suñu machine bi mooy deuxième troisième méthode bi euh, mi ngi ñëw xam naa ne xaw ya incha allah dana dana ñëw Mahatul ñëw maanaam ko daal war a ñëw temps bari comme ni nga ko gisee nii bu ñu xoolee simulateur bi même eh, menu bi am fii moom lañ am ci suñu téléphone bi ak textbook bi ak yëpp kon moom mooy moom mooy siy feeñ émulateur bi nag xëy na lim tane yeneen ñaari émulateur yi mooy que ne yéen moom sa sa ci sa téléphone ci nga koy bu dee da ngay ci machine bi waaye kenn ku nekk rek ak bi nga xamee ne moom la gis ne xëy na moom mooy gën a moom mooy gën a jàppandi ci moom euh, bu ko defee nag des fois ngay nga ko mu lànk wala mu am ay ngay def da nga ñëw fi ñu mooy daal def fi ñu bind restauré boo defee restauré daal di benn bu fekkee da ko da nga ko doon jaaree ci all compagnon nga dem defaat all compagnon bu doon da nga ko doon jaaree ci nga ñëw nga ñëw ci fi ñu USB ndax dañ see dafay xaw a dafay xaw a am problème yu ci am kon bu dee bii moom fi ne euh, loo indi fii loo ci def rek euh, moom dafay mise à jour li nga xam ne moom mooy sa euh, sa kii bi nga xam ne moom nga moom nga am kon yii mooy ñett émulateur yi nga xamee ne danañ ko faral di jëfandikoo lu bare bare ci suñu ci suñu bu ñu liggéey benn liggéey pour mën ko di ko gis amaan na beneen façon émulateur boo xam ne nag moom bokkut ak yi benn moom benn moom émulateur boobu moom dafa nekk boo xamee ne dafa dafa dafa beru mooy ban da ngay installé ma gën tuuti dangay ngay installé euh, bi ñuy wooyee bi di euh, statistique bi nga xamee ne moom it ab émulateur la comme ni nga ko gisee nii mooy bu verte bi Serigne Cheikh Niang joxoon na ko ci sant ba euh, boo xoolee moo nekkaa nii waaye boo ko téléchargé ba ba pare ndax bëri na bépp application boo xamee ni mën nga ko installé ci sa machine mu yor forme Android rek man man nga ko jàppe émulateur ndax bii ci la bokk wala bi moo ci cliqué ma dugg ci nga xaar ko tuuti mu dugg euh, mu dugg ci kii bi mooy kii bi ndax biir boo duggee ba ci biiram forme bi mu yor comme forme téléphone la yor moom dafay xaw a jël temps ma mu daal démarré daal dem waaye am temps dafay xaw a yàgg xaaral ma pause boobu ngir a bu bari euh, bu duggee après ñu ñëwaat incha allah ah kon moo nekk nii gis ngeen boo boo xoolee même dafay am Play Store am ak am YouTube ak comme téléphone lay mel comme téléphone moom lay mel. ne bu ñu xoolee fi ne lii nii ab dictionnaire la boo xam ne dañu ko see inséré lii tamit ab ci la boo xam ne moom dañu ko see inséré yii nii yëpp ñu ngi ko liggéeyoon ci kii bi mooy ci application bi ñu nekk nii ci mooy site mit ab inventor bi boo ko ci liggéeyee pare nag dafay da koy dafay daf koy enregistré ci sa machine comme tey jii bu ñuy liggéey dara euh, ma ñëwaat fii wan leen ko comme tey jii bu ma liggéeyoon lii ba pare xam nga bu ma ñëwoon fii yaa xanaa wax nga gisoon nañ ko bu ñëwee ci construire bii nii da nga ñëw fi ñu bind lan euh, ab save moom boo ko boo ko boo ko boo ko boo ko kiiwee rek après dafa dafay commencé xoola dafay commencé di di di enregistré wu xoola gis nga dafay commencé di enregistré wu dafay nekk cinquante bu dee ba jeex nag fan koy fekk yaa ngi koy fekk ci euh, téléchargement da nga ñëw ci ci sa machine nga ñëw ci téléchargement ba ñu xoolee gis nga moom nii lay bu paree liggéey bi nii lay mel léegi nag pour mu ñëw ci sa émulateur bii nii nga xamee ne maanaam mooy bi bi nga xam ne dafa nekk forme téléphone naka lay def Euh, boobaa kon da nga ñëw ci ñett tomb yi ngeen gis nii ñu daa def naan installé euh, lab daal ci cliquer mu la la yóbbu ci sa machine nga xoolee ban façon application mu nga bëgg dugal fii nii fii ne bu ma ci cliquer rek wala bu ma nee nii mën a xam ma cliquer bii nii ma cliquer ci automatiquement ma koy daal commencé di ko insérer ci fii da commencé di ko ci fii fii nag nga bàyyi xel leen mooy que ni moom boo fa xasee mm, application boo ci installé rek te fekk nga liggéey ko xamal na yow mooy par nga mooy que ni yow modification yi pour nga pour nga defaat ko il faut nga demaat ba ci site ba ndax manam liko ñaari ñet emulator ya tane moy lan moy que mën nga di def di xol te doo enregistré gul nga bo ne ba ba pare nag ba enregistré da la wurul lepp baax na waaye fii moom mën ngaa def liggéey li ba nopi ba ñu xol fi nek da baxu nga xam nga da nga obligé wat demat ba fam ko don liggeye da dem modifié wat da di xool fan fan nga juumee ak ko defaraat da ko enregistré wat da ñëwaat fi mo tax bi mën nga wax mo téléphone ñoo yem bii mook téléphone ñoom ñoo ñoyam ci nekk gi ñu nekk ne moom li ñuy essayé mooy loo xam ne pare nañ waaye bu fekkee ne nag moom يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس